présentateur euh, bu journal Wolof force si doon kaw euh, RTS moo daal jiite boobu li xam justement euh, syndicat daal di métti lu li n'a xam ne Pape Alé mu koy di def loolu lépp ko daal yaatu yaatu den par rapport ak li nga xam nekk modi relance par rapport ak miro assemblée nationale sa dissolution Abdou Mbow mu ngi di à la charge par rapport ak walu bu mel alors tout d'abord enfin da nga koy di dans l'affaire ki nga xam nekk modi babako Touré ak maître georgia Diagne ñi doon xaar nak tey jii ñu daan wuy ji foofu si doon yan ak wàllu à la dernière minute la section de recherche m'a notifié qu'il nga xam que moo di Babacar Touré que lu nu mel pas nañ reporté alors nag report boobu nak jaaxal na Babacar ndaxte aujourd'hui japonais il était confiant pour début du boobu de convocation ginnaaw bu mu ko médiatiser concrètement Arfan oui euh, man japonais ni report boobu peut-être ay médiation en a di daw ci souffre parce que li comme euh, xam dafa c'est une fois wax naa la ci suba ni ñun presse bi hmm. ñun li xam dafa un journaliste comme Babacar Touré Mandio du génne ay révélation di wax nit bay ay nit sans preuve man dama ni am bo nous mu révéler l'affaire là c'est parce que dafa am lu ko l'air lu leer lo xamantene mu ngi wala mu ngi koy yott ci loxom en connaissant la personne investiga investigation bu mu yàgg def dans les entreprises ci les citoyens lambda secteur bu ne daf ma leer ni que Babacar Touré manju bu demee ba wax l' là l'affaire de l'escroquerie escroquerie ba tudd maître gior Diagne ci eh, affaire boobu pour man dafa am lu ko maintenant maintenant li jaaxal ñëpp ah, man dama jàpp ni que simple interrogation de la section de recherche. Diarra ñu koy ñu koy reporté <laughs> c'est c'est pas lui seul De mon hein. moom c'est moi étonné même man sax étonné Même bi ma déggee ni que affaire bi dañ ko reporté dama mais tiens tiens c'est pas un procès c'est pas voilà euh, euh, un jugement non c'est une interrogation de la section de recherche la sûre la sûreté urbaine Voilà mm. leneen ak leneen buñ la wooyee soxlawu ñu reporté lan la ñuy reporter ils n'ont pas besoin de ça donc moo tax mu jaaxal ñu maintenant il faut que ngeen xam benn affaire ndeysaan lii xam nga lan la may fàttali sëñ Fallou. Mm. Euh, l' affaire Ousmane Sonko Adji Sarr bu muy éclaté ba ñoom ñi taxaw ñoom waa Benno Bokk Yaakaar ñi taxaw di naan non ñaari sénégalais ñoo jotee nañu dem wuy ji ñaari sénégalais citoyen lambda ñoo jotee yoon état nekku ci yoon justice nekku ci wala yoon keneen nekku ci. Mm. ñaari sénégalais bu ñu jotee rek dañoo war a dem jàkkaarloo si kanam yoon.

il y a Babacar Touré manjou qui est un journaliste d'investigation quand même. Bon, il y a un dossier. Il n'a pas commencé à parler aujourd'hui. Il y a un faté le cas Aguissar Ousmane Sonko. Il a parlé. Est-ce que Dougal l'a Tikasso? Hmm. Non Il y a un faté le Babacar Touré manjou qui est l'affaire de euh, euh comment de euh, comment Mambayan je Mambaïan Ousmane Sonko Prodac. Wahamati wax Kenan, keneen ak ak beaucoup de dossiers jaar la fi. c'est un journaliste d'investigateur. même le cas récemment avec Gabriel Kane. et François Hélène gay <laughs> mais waxna ci c'est un journaliste d'investigation là hmm. y a na wax ci ay dossiers ba paré génne ay preuves Ken mësu ko jàpp. donc man dama japp ni que bu demee tay ba wax ci affaire bi ni <laughs> daf ma leer ni que dafa yor lu lu lu tax mu wax lu muté lu muté donc il man regretter encore une fois ma ne il faut pas que ñu jël affaire bi politiser encore une fois nañu sommes sénégalais non non non non non non non euh, c'est pas un procès il n'y a pas un procès là-bas. Hmm. c'est une interrogation. de de De ko de reporter pour encore gagner du temps qu'est-ce qu'on a on a gagné du temps la section de recherche qui est basée à Colobane un citoyen sénégalais un journaliste voilà deux citoyens sénégalais nous nous, mu nous, ay parce que ay nous nous commencé mais il n'a pas la section elle n'a pas besoin de reporter ça la section de recette n'a pas besoin de, de, de, reporter cette interrogation au nom de quoi Moi, peut-être dafa am médiation yi bon dama ne peut-être la wax waxuma ni que loolu mais euh, même loolu su sax même euh, dans la version de Babacar exactement euh, il n'est pas prêt pour la médiation parce que li mu wax nee na mi ngi dégluwaat li nga xam que moo cette section exactement de la gendarmerie mhm. bi nga xam ne itam mu daal ay enquête si wàllu wunu mel somme 600 cent millions liñ jàpp ni moom la Marilo d'adi di li nga xam que moo di escroqué si ñenn ñi lu nu mel ñu inclure ñenn ñi nga xam ne itam pouvoir bi bokkoon Antoine Félix Diom Diabara maître et tant d'autres et tant d'autres en réponse le maître Diodiagne daal di euh, mal nous ni itam ñoo ko tout mal Touré euh, ba euh, euh, et tant d'autres et tant d'autres concrètement. dama cette affaire mérite d'être éclairée. Hmm. affaire aussi grave. Parce que escroquerie, c'est un délit majeur. 600 millions. <laughs> voilà, on parle de 600 millions. Hmm. Une euh, affaire aussi grave, affaire gravement, grave, on n'a pas besoin de reporter l'interrogation. Vous faites que mon maître ne doit pas porter plainte. De l'autre, il faut porter plainte. Hmm. Moi, ta section de recherche, procureur donne sa section de recherche, euh, pour nous mais il y a une plainte, qui a été déposée. On n'a pas besoin de reporter l'affaire. Pour des questions d'interrogation. Hmm. Pourquoi, le reporter <laughs> Au nom de quoi Bon, nous avons ban gal encore la yi am mota reporter mais moi, je suis pas d'accord. Il faut que nous léral la l'antenne des sénégalais c'est affaire bobu 600 millions. Mais non non non mais je ne parle pas des 600 millions de l'escroquerie dont on parle. Bah, mais 600 millions. Oui te muy faire la toile xoolal sénégalais bu ñu xëyee tey surtout non non nous nous de la presse ñu ngi wax woyi woo nañu suñu confrère Babacar Touré Mandiou mu section de recette tout ça l'affaire commence à à à faire à faire la toile. Ah, maintenant lu mel noonu sénégalais yi soxla ñu ñu mu leer parce que attention. il y a une personne aussi qui a été citée, Maître Dior Gagne. Ce maître Dior là a été cité sur l'affaire de suite beauté. Mm est-ce que y ngi yéen a le hmm. ba sénégalais donne sa sàkku mais c'est ce qui intrigue les sénégalais c'est la question dont les sénégalais se posent aujourd'hui maître Dior gisuñu ko ci procès Ousmane Sonko Adji Sarr alors qu'elle, elle a été citée aujourd'hui elle est citée dans une autre affaire <laughs> voilà c'est le même maître qui revient voilà donc il faut que sénégalais soxla ni pour pour pour mouler parce que nous bëri ñoo waxuma ko xiif ci sens bu négatif bo gisee ma la ñu bëru dañoo hif maître Dior Diagne parce que on ne peut pas être continuer d'être cité dans des affaires ba paré kenn du ko déglu. alors c'est clair mi ngi non kenn du xam ndax ba xam ni ñu koy tuumal mom moko def wala defu ko. alors c'est clair c'est clair mi ngi non donc miiru ki nga xam ne que moo maître Dior Diagne ak Babacar Touré lu ñu mel nak mu di ko daal renvoyer renvoyé euh, ba jëmi ci incha Inshallah. alors ñu daal di batay suñu waxtaan Arfan à la dernière.